ni ma ko mën a tënkee rek ci gàttal ñun ñëpp ñu dégg ko noonu xamee naa ci ne bis penc ba nitu sëñ Tuubaa dafa ñee kenn